waaw dox naa dox naa de yéen kay bu yóbboo ngeen gaaw remboursé ma sama essence bi ana bugaan ngay dani remboursé mais si ñii dañ ma remboursé sama essence bi ah oui ah damay a maase ah bokk na si ñi doon maase non non non alaaji li nit ñi umpale dafa bëri de maase na moom moo maase nag euh, euh, euh, kon 4 mai la wala 2 mai moom la déggoo ma de dama ne dafa maasal 4 mai léegi ma commencé attaqué alaaji na bi ko aji ne ubbil bunt bi hmm. am na ko sone xam naa client la mu tiit forcé na ko ba mu dem ubbi damay cos rek comme ni ma def keroog de hmm. alaaj keroog ñu bari bëri dañoo yaakaar ni dama laal fépp déedéet dama cos rek bàyyi dégg tey damay cos aji gone gi gone gi yeggali ba kilifa gi dugg see nee na lim fay ñëw yëpp mosu fa simi gañoom simiku mm-hmm. yéreem mm-hmm. joxe ndoddam nee na jafe-jafe ndodd la maaseel ko digg ginnaawam gi mm-hmm. waaye tubéy mosu faa simeeku ci moom ci moom gis ca nekkee jékki-jékki nañ ab diir aji def ko signe moom deuxième masseuse ni ko ne ko nii xool def ko nii lii waroon naa nekk télé liyaar ko loxo bi ni ko génnal mu ne ñul met fomp génn ñu toogu biir alaaj déglu de bu baax ñu toog rek aji saar téléphone bi baaxul téléphone am bi buy wax mhm. il faut mu mee libre la pour di mën di dégg yow li ngay wax mhm. xam naa woon problème mu écoute la téléphone bi doon am. waaw moom ko. Mm-hmm. mu dégg aji ne ko. Mm-hmm. ñëw leen ngeen jël si ma pare naa. Mm-hmm. kooku ne ko. ngeen baal ma ci kàddu gi de. dama ko bëgg a wax textuellement. baal ma ci kàddu gi. kooku ne ko alaaji. waaw ah, loolu ba mën naa ku yëg boppam. moo ko. waaw mu ne ko. ba daan ay alaaji yaa ci yegg di lii lan la nii. waaw kooku ne ko mbaa daanu mbaa daanu na. moom daal lii dégg na ko dégg na mbaa daanu kooku ne ko waaw. waaye daal moom nee diggante bi mu génnee ak bi aji génnee. di mm-hmm. wax. Mm-hmm. nee na foofu sëy sa xëju fa waxoon dama laaj yoon. fóonante yu yu nit yëgee boppam sax xaju fa à peu près deux trois minutes. non nu fa nu fa nit yëgee boppam mën na fa am parce que mu ngi dégg kooku ne ko. Mhm. daanu na mu ne ko waaw daanu na waaye nee na daal xam naa ni sëy normal xaju fa waxoontuma laa viol. dégg góoma de dégg naa la. gars yi di ko jël si. aji indi test. capuchon bi mooy yu ñuy defee tes waaw teg. ne leen dama ëmb damay dem dañ may jël si Jakarta may jël si ñu génn dama ëmb gis kat kat waaw mu wax leen ne leen man damaa ëmb commencé mel ni kuy paniqué ah génnee cinquante mille yi grand bi fay dem jox ko patron bi génnee dix mille may deuxième masseuse bi mu ne ko lii nag ah mo ca lañ ko yóbbu aji may ne deuxième masseuse bi xaalis dix mille francs fekk cinquante mille la génne cinquante mille yi lañ fay nee na la Sonko fay. waaw ñu commencé. mu dem kees jox ko patron bi. ñëwaat yëkkati dix mille may ko. mu ne ko kañ nga ma daan may dix kat kat bu ñuul kop. Oh. ñëw jël si ko ñu dem. deuxième jour ba nag. aji daa ñëw di jël si bagage am yi. yére ne leen sama papa daf ma génnee ndax li ma ëmb commencé jooy ñun xale itam ñoom ñëpp ñuy jooy. ndax yërëm ko ndax yërëm ko. ñu ne ko añal ba pare mu ne déedéet patron bi ne kon añ bi defaral leen ko ko bool. bool ba da koo yóbbaale yeneen yére yi def sax ñu ne ko sa yeneen yére yi mu ne non may naa leen ko ci la ko wax ne ko aji yow lan ngay def nii lu xew qu'est-ce se passe hmm. yow am na looy manigancé deuxième message bi waxoo aji ne ko jëlal cent mille francs yi te daw mu ne ko cent mu ne ko maa la ko may jël ko te daw génn gaaw dëkk bi dawal mu ne ko mais lan laay daw man cent mille yi du ma ko jël te waxoo ma hmm. waxu cent mille yi jógee ak lu xew mu ne ko jëlal te daw oh laaj xale bàyyi nettali de lii sappo bi la léegi ma bàyyi mu wax mu wax léegi nag promettre naa ko ne ko sa voix koy changé comme ni ñu koy defee ci tas bi àlaaji benn ñaar du ma wax dëkk bi nga dëkk te du ma wax it fu ma la jële ak fa ma la fekk parce yaayu yaayu yaayu moom moom moom euh, loolu boo ko waxee day day gars yi dañuy sib ak yow dégg nga loolu alaaj jëlal cent mille yi te daw nee na mu làkk ko ci séeréer tamit junni jiin ke too juf jëlal ñaar fukki junni te daw mu ne ko lu may daw ak ñaar fukki junni fu ñu jugee mu làkkaat ko loolu ni ko voilà ni ko lu may daw wax nga ko jànki num de Tanju Faama mu ne ko jangi rek jangi jëlal te daw aji woo mu bañ na du laal cent mille franc yi waaw parce que xamul lu xew ba li xew nii xew te moom nag nekku ca dara da doon liggéey rek. kon jotul jotul laal cent di franc. déedéet déedéet jëlu ko. daal li xew daal man sax day lii bañ ma yóbboo police lii laa fa nettali lii yeneen yi nag doy na waar élément bi ñu ko bàyyi ba suba mm-hmm. élément bi dañ ko bàyyi ba suba <laughs> non non il faut ñu teg ko comme ça sérieux waaw non et lu tax ñu koy teg ñu mu am important ñu teg ko parce que tey la assemblée war a prononcé wu. est-ce que dafay lever immunité parlementaire. alaaji ñoo def ba am ndaw si. Ah, alaaji naa la ko ne naa la ko léegi nii ci rajo balaa ñoo tàggatoo su maire ñu déglu ndaw si acca. maa ngi lay nuyu bu baax. waaw ak maa ngi lay nuyu mu ne ma dama ubbi. mu ne ko dama ubbi. parce mu dem ubbi. bi mu mu dugal client bi ñu client bi jógee ma ne ko xal mu ne la mais dafa mel ni ku ko xamul man tamit ma dugg jox Sonko salvet bi gisuma ko ba léegi de ak ko maase ko ba mu def loolu pare moom Sonko ne dugg ginnaawam bi ko ko maase parce que day métti bu baax ak milliard ñu ma génnal ci laa génn bi ma génnee dañ toog ci biti taal sama téléphone di connecté mu génn si bi mu génn see ma ne ko yow am nga lay manigancé ngay rab rab nii rek man sax pour man leneen lay def mais xamu ne woon lii la ci jublu fi ma ñaawee njot mooy fu ma ko déggee muy wax téléphone parce que téléphone am bi dafa am problème écoute il faut mu def ko libre mun a wax bu ñu ko defee main livre wàññi ko mais maa ngi dégg parce que sorewuñ mu ne ko waa mu ko ñu ngi lay jël si Sonko dem ni bit mu tëjaat buntu bi ñëw versi suñu patron moom jëkkëram moo nekkoon ma moom ma ko ma ne ni ma Sonko moom ma ko mais li mu nekk ci kër gi moo ngi rëpp rëpp xam nga ni boo defee loo xam ne wóoru doo toog ñu rëpp rëpp mu ne ko yow amul loo mën a glancé de mu ne pat mu yëg ci kaw mu fekk ko ci kaw mu ne ko lan la mu ne ma sama yaay mu ne ma naa ñëw léegi léegi léegi parce que suba daa am fu may yoon fekk na dëkk laabel nañu ne dafa ëmb Zik FM Dakar ba indi ci texte da ko rëstam mais indiwul li wone ni lii texte la ëpp texte bi la indi te ko ci kaw taabu bi fi taralet yi di nekk mu ne ko ay aji couvre-feu bi fooy dem mu ne Jakarta moo may yóbbu ma ne ko Jakarta mu ne ma ne ko Jakarta nan la mën a yóbbu mu ne ma Jakarta ci koñi lay dugg ak yéen ma ne ko waa baax na ci laa wàcc dem ni ko aji moo ngi nekk si kër gi bëgg la tonton Ibrahima ñu dugg rek wala ñu def dara ba mu ubbi bunt bi Ibrahima nag bàyyi ci xel parce que woo na jéem a ba expliqué ko mu bàyyi ci xel aji jékki-jékki di dem rek ñu dugg ma jóg man ubbil ko buntu bi gis groupe xale yu góor xam mooy xale yu ndaw yi daw couvre-feu pour man sax ay agresseur lañ maa ngi ko yuux naan ko aji waññeeku si mu bi yéeg bi li mu yari leer ñëw ay quinze heures seize heures mu ñëw bi mu ñëwee ñu ne ko aji sa añ baa ngi nii mu ne déedéet police la àndal mu ne ko police mu ne waa jël leen sama yére yi loolu lañ soxla rek jël leen jël yéreem lemu ko sax yu tilimee bi set yëpp mu ñuux ko ma ne ko comme police nga ànd ak kaay mu gunge la muy dem ngay jooy janq bi du jooy parce que dama ko yërëm ndax nee na papaam da ko génne ñu dem añu ñu dem ba si oto bi li ñu ñi di wax di weddi àdduna nit ko nekk da ngaa war a wax rek te yàlla rek tax ndax man lii may wax dama ci am lu leer nañ te suñ ma woowee ma jaaraat ñu dem ba oto bi 4-4 bu boo xam ne ni ko vitrine doo gis. aji xale bu góor bi toog aji bi ñuy ñëw xale bu góor bi wàcc aji dugg dend benn xale bu jigéen ak xale bu góor bi kon naa ci ginnaaw ñi tàng sax ak kenn ki góor ki nekk ci kanam di dawal ak keneen ku góor ki nekk ci kanam kon xanaa du cinq personnes ci oto bi aji dem même pas trente minutes patron bi agsi ak police dañu enquête wax ji nii la demee dégguma yuuxu dégguma dara loo xam ne Sonko def na ko ci biir lii bi wala moom te moom moo ñëw versé ba yëkkati xaalis bi jox ma ko. moom la demee. waaw ko yow boobu nga gëj a gis aji ba léegi nii wala. aji depuis mu def loolu ba pare. Mm-hmm. ba gis ay bagages am boobu lañ ko mujjee teg bët. ba jour bi mu dugal bi histoire bi amee am ba ay trois jours. mu dugal statut du jooy. envoyé ko ay vocal. ma ne ko yaa ñàkk jom yow yaa def lii yëngal réew mi mu yëngu nga naan da nga def ay yoon mu lii message bi bloqué ma boobu laa ko mujjee dégg te boobu laa ko mujjee gis te boobu sax tontuwu ma. yéen xanaa ay mbokk ngeen. maag aji. Hmm. maag aji ñu ay mbokk de. ma doo leen ay mbokk. déedéet mais moom mayu la woon xaalis yëkkatiwul xaalis may la wala. aji yëkkatiwul na dix mille francs. Hmm. di sonk génne may ma ko. mën na ko lii nag mu ne ma sonk moom ko may. en plus biy nekk ci bureau bi. Hmm. newoon naa ko aji. yow lan moo tax ngay def li lu la ko jaral mu ne ma.